xol day xumaag ni weñ di xumaage xol bu xumaag nag ci ñaari ngir lañ koy gise muy di def ay di def ay bàkkaar nit koy defi bàkkaar lu ci ëpp bu ko yëgee ak bu ko yégul xolam dafa am taas taasi xumaag xumaag di defi bàkkaar wala mu sàggan mu sàggan ni gis na ne lu baax nam ci saware woon sawareetu ko ci loolu bu ko ni jegee ci xolam na yëg ne xol bi tàmbali naa xumaag bàkkaar bàkkaar nag xol bu mu xumaagal jéggalu yàlla moo koy xacc xol boo xam ne càggante moo ko xumaagal delluwaat ci yàlla ci jotaay mel nii moo koy xacc kon jotaay mel nii lu am solo ko dajaloo di ko bi jataayu sikar la te jotaayu sikar mooy jotaayu malaayika yi ab safaanam mooy jataay ay neen ak i caaxaan di jataayu seytaane yi jataayu seytaane yi moom la sëriñ bii mooy te ndikaloo ndaw ñi ci tasawudu sixaar di leen wax ne leen wajj tani bu majaalisa saqaawa mooy bépp jataay boo xam ni ay neen nga fay jële ak i caaxaan ak i werante ak i xuloo ak i bañante jataay yooyu jataayu seytaane la